yoo xam ne yitteem la pour bëgg a ñoŋal liggéey bi ba ca njëkk mooy ci nu mu gën a gaawee mooy fileek altine bu soobee yàlla ñu gaawantu ba li ñuy wax passation de service mooy lenge gi nga xam ne ñi fi newoon ci ay ministre war nañ koo jox ñi ñëw ñu mun koo def ci ni mu gën a gaawee ba nit ñi mun a toog commencer liggéey bi parce que xam nañu li sénégalais yi di xaar ci ñun ñaareel bi mooy dañu wax ni ñi ñu tabb jox leen ndomb tàng bu toll ni ministre de la république président de la république dafa jàpp ni loolu mënul ànd ak leneen ndax responsabilité bu rëy la moo tax ñu ne kuñ dem ba jàpp ni réew mi soxla na ko ci niveau bii ñu toll ba tabb ko bu dee am na beneen mandat boo xam ne mu ngi woon ci ndoddam moo xam maire la wala président de président conseil départemental wala député président de la République jox na la weer pour nga mën a tekki ndomb tànk boobu def say passation pour mun a jagleel say waxtu yépp ci liggéey bi nga xam ne moom lañ la sas muy liggéeyu ministre de la République lii mooy tegtal yi nga xam ne mooy tëj waxtaan wi mu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah